suba nag wante daal lan ngeen di def nii. yàlla am dama yaay ngeen di lu do heure bi yéen soof ngeen de heure bi nit ñëpp war a dem dem liggéeyi ji ngeen toog fii na da ngeen di kerlo yéen yaa ngeen ne da ngeen di lu do soof ngeen ma de yow da nga ñàkk jom yow génnoo wuti loo jox sa baay mu jox ma du toggee reer bi nga nekk fii naan da ngay yow da ngaa ñàkk jom te bala maa dee nga am ànd sa xarit bi nga xam ne kenn xamul lu muy eh, dund. Eh. yéen soof ngeen ma de. dafa soof quoi. sa gàttal la neex. soo nga dem jëli sa. nga dem jëli sa bopp ñu a jaw soof bay bëgg dee yow doo am lu jàkk ndax sa ndey nga nul. moo dem ngir yàlla waaw ah, dem kay. ay sa bopp. est mais booy bi sonal na la de booy kii foo ko génne mu kër mën am jàmm. boo fàtte quoi génne kay. Ah waaw mën am jàmm. donc loolu moom mooy la. naa teg benn dil. pourtant li wax ni idée de. c'est le son parce que booy bi seet naa bi ñëwee ci kàll yi ba léegi amuñu jàmm ak yaay. xam nooy def. waaw Cheikh lañ koy boole. Cheikh Cheikh Cheikh nga dëgg booy loolu idée la. dama jóg di sant kii maye sala. waaye booy sa sa booy fële naa xam naa léegi mu egg. yëpp toog booy. sama gars yi yéen daal di cuune rek. yi ku wóor ba heure bi ngeen koy woo jox ay rendez-vous kenn xamul ni. ah mais au sa bëñ doog ba pare. heure bi moom lu ne xañ na ci heure bi moom dox di mbëkk ak di daanoo lu ne xañ na ci ndax day mën jant bi lañ lay tegal sa kanam. ah da nga ko nga koor de. ah saa koor koo ko tuddee nga ko doom. waaye wuyu ma sa waay li tax ñu woo la fi. ah kii nii bàyyi daam mi. waaw waaw daa benn tante boo xam ne dafa ne si gàlle bi. waaw ñu trop. waaw dafa fiir nag. waaw ñu lakkal ñu ba bëgg dee kon dañu doon liir sax mu ñu commencé di ñu aay di ñu yuuxu yooyu. exact ñu bëgg nag ñu jël benn dil boo xam ne dañ koy def pour génne ko kër yi am daal. waxee rek. sama tante la quoi dafa nekk ci gàlla bi mais mooy ñu jàmm mooy ñu saa solo ñu quoi mhm. ci ne mhm. mën nañu tëgal benn diw quoi xaw mhm. nga yow fexelu am ak moom benn benn photo rek nga yónnee di ko quoi hmm, benn photo rek ngeen gis ñun daal xool nañ fexe ba mu génn kaale da ngay taxaw ak moom la soo taxawee ak moom ñun danaan la photo photo boobu lay am lay jox ko paa bu dul photo sax man moom album lomotif maa yeeg moom. ah bon waaw moom man noonu laay doxee man ma demee si di wër ay lomotif rek. ah bon sama mbir dafa spécial ci wàllum <laughs> ah, nag defumoo ko ci gratuit. ah xanaa woor gi ngay woor sa du am nga résultat buy séntu ëllëg defuma ko ah. Ah, njaaj bay. Hmm. mën naa laa fekk fii nga nekk mu indil la daw ganaar yu baax. la waaye xam nga diglu ma <laughs> mooy li nga tudd waaye caaxaan di ngay bañ mooy ma bañ a def togg ndogu bañ a def dara toog di la xaar. mu ñëw lépp éségal ko. ma def loolu. te kii nga àndal dafa doy waar. kaba bi ma ne poto gerte nii man li may bañ mooy mu trompé ngeen trompé ma ndax. non loolu du ci am na sa xel dal quoi. te ngeen xas yow. man dinaa ko gérer. la fekk fii jox la sa hmm. baax na ñaangul 18 heures zéro nan doog ñëw commencé préser ma xam ne man doog laa ñëw loolu du garaaw wala yow bu wax dara bu wax dara ok nice abana ah, ñaamul jaas naaw zéré abana nice eh,